dikkati na président Macky Sall nee na ba tabaski ji weesu ma wax ak yéen sénégalais yi wax leen nag la ma nar ci troisième mandat bi tribune yéene kaay naan fa yegg ak moom kaay ma tojal leen kaas xamal leen la président Macky Sall nag fas yéene ak ñun ci réew mi moom président Macky Sall ma ne la bu leen xaar lenn lu dul mu wax ne candidat lay doon ci élection présidentielle yi ñu jëm ndax nag lépp loo xam ne teg ci réew mi moom Sall ngaari ma Macky Sall teg nag ci nam cin laa ngay bax di xeeñ coow la mooy lan la kor Marème Faye Sall di rëgal las yéen kaay nan kon bàyyi nañu coow li moom président Macky Sall daal di aju ji nag ba makkatal mu karam Dakar Times naan président Macky Sall ngay doxal de moom président Macky Sall gisee nag Nicolas Sarkozy yàggul ca Paris defal na Amadou Ba ay link président Macky Sall wax nag Emmanuel Macron ñu ne déeta waaye Sall nga dem màkk ëllëg lay ñibbisi l'info yéen kaay naan ma ne la président Macky Sall candidature am bii dafa mel ni nag njëkk yeewu ko yor ndékki loo xiif tëddaat rek ba mu yeewu sàll nee na danaa wax ak yéen xaar leen ba tabaski ji noppi ngeen jëfandikoo seen ndawal seen xel dal ma ca roog yéen bugaan ci tribune yéen a kaay naan kon looy wax président Macky Sall da doon jàmm lée fa yéen a kaay naan président Macky Sall daal nee na seen xel na dal gannaaw tabaski ji ma ne la danaa wax ak sénégalais la may wax nag du kenn moo ma koy digal wala kenn moo naan man defal nii wala jaaral fii man daal sàll maay xool sama xel may ma ma daal di koy jëfeeg yéen ci réew mi te naan dialogue bi daal ay patriote dëgg-dëgg ñoo ci daal di ne intérêt Sénégal gënal yëpp tribune yéen a kaay jox kàddu Bougane Gueye Dany mu xam leen ni Sall daal fit gi mu am ci sénégalais yii France dëgg-dëgg moo ko may moom président Macky nag du moom ak màggitu complice yi nga xam ne ñoom la àndal ñooy génnee sénégalais ci guute yi nga xam ne nekk nañ ci dialogue bi dil la dil goo xam ne lañ ca soobu du lenn lu dul daal di xaalal président Macky Sall ñetteelu candidature bi nga xam ne lewul baaxul ànd ci ak société civile boo xam ne ay politiciens lañu ñu fàtte nag milliards yi nga xam ne sàcc nañ ko ci sénégalais yi te ci réew mi ak loo ci man ci déggit ak fi mbir yi toll moom Bougane Gueye Dany day ma ngay ak président Macky sàll ci critique yéen kaay moom Bougane di fa xamle ni naka lañ mën a waxee ci ëllëgug Sénégal te waxuñu génn ak daan goo xam ni fas nañ ko yéene teg ji ñi sàccaalaluk askan wi naan leen lu toll ci ñaari téeméer ak juróom-ñaar fukk ci recommandation defal naa ko gouvernement gi jébbal naa leen ko président naan bu tabaski passé naa leen wax la ma bëgg ca mandat ba Bougane naan kon xanaa ndéwénal la te naan lu ngeen ci manti déggit Sall moom candidat la ci réew mi nay leer ngay song président Macky Sall moo taxit ca turbine yéen a kaay ma ngi fay xamle ni waa Bennoo seen yorin baaxul la war sénégalais yi fi mu ne mooy résistance Bougane Gueye Dany ci yoor yoor naan sénégalais yi day fi mu ne ngembu nañ ba dëgër fas yéene nag janoo waaye tam xeex ak seen i nervi yi moom Gueye ma nga naan sama focus benn la mooy président Macky Sall 24 heures yéen a kaay naan man jiital gëm sa bopp nga dal ci kaw président ma Sall l'évidence yéen a kaay naan kon dalil ca kaw seen dialogue ba Walf Quotidien naan man rax ci doole di tuumaal France ci ñaawte fi nga xam ni moo am ci réew mi lii Quotidien naan man nee lépp loo xam ni am na ci réew mi loxol France dugg ci ci waa grand place mu fay xam le ni président Macky Sall taskatu yaakaar la ndax nag fi mu ne góor gi nga xam ne dépense boo xam ni xëy na ko jox njabootam suturaal leen moo ëlëm bopp bi location ñëw ne ko déetawaay ak fi réew mi toll gars yi buum te leen waxuma laa xaru tabaski bugaan naan ma naan sénégalais yi téye leen rek te ngeen muñ te xam ne lu ngeen muñ mu jeex ndax président Macky Sall nag tabaskeem bu mujj ak ñun ren jii la ci l'exclusive yéen kaay mu ñuy xamal ne nañu résister ndax yéen sénégalais yi fi mu ne seen jafe moom moo di buumu xar président Macky Sall nag dialogue la tal l'indépendant yéen a kaay naan man la nga xam ne jël nañ ko ji dogal ci dialogue ba Bougane Gueye Dany day ma koy fubal nan ko alee le regard yéen a kaay naan xotti lépp loo xam ne jëloon nañ ko ni ki la le soleil yéen a kaay naan ko déet lu toll ci ñaari téeméer ak juróom-ñaar fukk ci recommandation def nan ko ci réew mi te lépp nag ci wàllu dialogue national bi la daal di anto l'enquête quotidien naan kon li am solo ci dialogue bi mooy lépp loo xam ne xale yi mer nañ ko réew mi mer ko askan wi mer ko ba mu leen génn ci mbedd yi conclusion dialogue bi day mani la nguurug Sénégal sedewu ca fa mu taxaw la taxaw amul génn ak goo xam ne am na ko ca la ca des nag moom moo di assemblée nationale ci boppam moo war a matale la ñu tënk dialogue ba Walf Quotidien naan kon moom président Macky Sall la soxal ñaari kaa yi di Karim ak Khalifa jébbal na ko député yi naan leen la leen soob ak la leen saf ci ñaar ñiy def leen El Malick Ndiaye ci l'indépendant yéen a kaay naan kon waaye daal la nga bëgg ci Ousmane Sonko mu saf la la ci moom daal am ci réew mi amuñu plan A amuñu Sonko mooy sunu candidat na leer le point yéen kaay mel ni kuy ñaawal waa opposition naan leen président Macky Sall def nab dialogue am am nay conclusion te daañu ko doxalee ci réew mi waaye yéen seenub dialogue dafa yàqu échec la El Malick mel ni ku naan kon sunu ŋaññi ci dialogue ñun la ñu ñor fi mu ne moom moo di Ousmane Sonko sunub candidat muy neex président Macky Sall ak mu koy naqari moom moo ca yem moom Ousmane Sonko day mooy candidat bu Pastef tribune yéen kaay naan man téeméer ak fanweer ak juróom-ñett gi taskatu xibaar ña nga naan président mandat bi dañ koy bañ te mën naa taal andi fitna lank ba tëdd ca naaj wa ne élection mësta indi jafe-jafe ci réewum Sénégal yéeni kaay bi ne nekkub njiitum réew nekkub chef de parti gaaya bañ nan ko majorité présidentielle ba lànk ne du fi dañ daal dina ñuy waxtaane ci ñi nga xam ne ñu ngi leen di topp fi mu ne waaye itam di tenu yi nga xam ne jàpp nañ leen te politique moo ko waral ñu bàyyi leen gaaya ànd ak président Macky Sall lank ne du ca dal na nga xam ne yoon ma ngi koy tëddee ci ñi nga xam ne dañ leen tëj ba noppi te code électoral bi am lu mu wax ci ñoom ñoom it ñu lànk loolee ne du ca dal le témoin yéen kaay mel ni naan kon sama wax day jalu Moussa gars yi def nañ seen dialogue ci seen biir xool ña bëgg bokk ñu boole leen ña bëggul bokk ñu Ousmane Sonko ñu sempi réew mi quotidien ne dëgg-dëgg mbir yi nag dafa am lu muy nuru Ousmane Sonko lan moo tere nag délit bu corruption à la jeunesse bi ñu daal di koy nooyal ba Ousmane Sonko nag mën a bokk ci élection ci réewum Sénégal ndax yéen nii nag boo seete ba seet faagaagal ñenn ñi bëgg ñenn ñi jàll la turbine yéen a kaay naan kon Adama Faye day ma nga naan sàll ngaari lamtoora bur gën a jëlal siis ma yedd la boo ma dégluwul yow président Macky Sall nga dem kilifa diine yedd la ñetteelu mandat bi nga xam ne bëgg nga ko ci réewum Sénégal bu mu ca dal président Macky defal ni say ñooñ jaaral ci buntu bu baax bi bañ a génnee ci réewum Sénégal ak i dàll yu lay dàqee ki gàcce Adama Faye naan président Macky Sall déglul kilifa diine yi ñu wax ak yow wax la dëgg mooy troisième amoo sañ-sañ yoon mayu la ko ci réew mi ndax ñaar yoon lan may président mu bu ñettee def na loo xam ne yoon may ko ko ci réew mi bul fu xarti te bul ca xat ca xatee gëm-gëmu réewum Sénégal Sall bul taal réew mi bàyyil sa mandat bi ci suuf Adama ko ko wax naan kon xam xam nga buñ la bàyyee nga samp sag ndënd gii réew mi tàkk Sénégal jëx-jëxi kenn nag tegu ko réew mi ku dul yow mi nga xam ne askan wi ci boppam nee nan la lan la mayoon sàll ñoo ko jëlaat te la la yoon mayoon bul ko fuqati ci seen loxo demal Omar Jum ci libération mel ni ku naan ko déet yow kay ña nga war a waxal mooy waa yeewi askan wi man moom maa jiite woon école bu parti PRP bu Déthié Fall daal dinaa wan ginnaaw Déthié wan ginnaaw yeewi askan wi ndax a coalition la boo xam ne gis naa ba gis na fitna la ñuy yee ci réew mi lu taal ñoo ko fi taal bëgg caxat fois ak réewum Sénégal na muy doxee Omar Dioum ne moo tax wan naa leen ginnaaw dem fekki président Macky Sall ñenn ñi nag buñ jàppee ni xarula man ma jàpp ni soowe Sénégal ak fi mu toll ak fa mu jëm ci ndëgg sërëx tribune yéen a kaay ne ko déet ndëgg sërëx gi kay ñi ko jiita ñoo ko teg réewum Sénégal moo tax Juan Branco nag jébbal na leen lu toll ci téeméer ak fukk ñaar ci plainte yoo xam ne ay personalité yu nekk ci réew mi la kalaami ji cour pénal international maître Aïssata Tall Sall ci l'info yéen mel ni ku naan koon xuwankooyam ndax na cour pénal international ñett ñii ñoo ko mën a saisir état bu ca bokk conseil bi nga xam ne moo yor wàllu kaaraange ci mbootaayu xeet yi wala it ab procureur tribune yéen kaay naan koon waaye xuwaan saisir na ko kalaame ji ñaawteef yi nga xam ne mi ngi am ci réew mi faatuk bakkan yu sakkan yi nga xam ne ñu ngi koy def ci manifestant yi. abonné leen si suñu chaîne youtube ngir jot saa ci réew mi ak ci bitim réew.